taxaw waaw am am mbettaange rek comme ñu bari yaakaar naa ne xëy na am na ñu wax ne ñoom euh, prévoir woon nañ ko waaye man prévoir woon loolu ca dëgg-dëgg parce que euh, xaw ma woon jàpp ma woon ne bi jàmme defee lu rafet loolu a ah, nangu ne Adama Barrow gagné na mu félicité ko yaakaaruma woon ne euh, une semaine après dina def lu mel noonu waaye nag njortoon naa parce que tekkaaral bi ci moom dafa dafa jaaxaloon waaw dafa dellu ci biir dëkkam tekkaaral waxul dara mën daal tekkaral bu ëpp bi doy na waar moo tax le 5 décembre donc am na ay fan ci gannaaw ñu def benn communiqué wax ne ñu gërëm bu baax a baax euh, euh, moom euh, Yaya Jammeh ci ni mu taxawee waaye nag daal ñu ngi ñaan Sénégal ak CEDEAO ak Union africaine ak organisation des Nations Unies ñu ñu xaw a ñaaw ñor waaw parce que war nañu daal. comme fii mu ne transition bi dina ñaari weer fii ñaari weer la ñoom ñu jàppale euh, euh, Adama Barrow pour que euh, transition boobu pacifique bi mu jaar ci yoon mu daanaka pour que jame bañ a am xalaat dellusiwaat ci li mu waxoon boobu dañ ko waxoon noonu rek waaye ay fan ci ñetti fan wala ñeenti tegu ci ah ñu gis ne mel na ni moom dafa dël si wàcc li mu xalaatoon. kon nag loolu nga xam ne moom lañ waxoon itam gis nañ ne moo moo fi sës léegi mais suñ ko defoon ci waxtu wi ko waroon a defee kon xëy na moom dina dina tax mu lu mel nii du ko ñemee def waaye waaye nag euh, def lu baax du wees moo tax ñu ngi lu déclaration gouvernement du Sénégal wax wax ju leer daal di condamné li nga xam ne moom la Jammeh def teg ci itam nag ne dinañ kii CEDEAO mi nga xam ne ci la Gambie ak ñun bokk. ak Union africaine ñu ak Gambie ci lañ bokk ak organisation des Nations Unies ñun ci lañ bokk ñoom nañ jël seen matukaay pour que li nga xam ne moom la peuple gambien décidé à dire euh, ñoom euh, seen président bu bees bi mu ngi tudd aadama Barrow loolu ñu respecté ko te euh, pression boobu war nañ ko def jëmale ko ci jëmale ko ci Yaya Jammeh Euh, ba pare biñ ko condamné ba pare wax ne ñooñu war nañ jël seen matukaay euh, Sénégal wax na ko itam artu na ko ci doomi Sénégal yi nekk foofu waaw parce que moo jël responsabilité bi te lu leen dal daanaka moom mooy responsabilité Sénégal du nangu ci lu mel nii ñu di ci bunduxatal ay doomam yaakaar naa ne déclaration bu déclaration bu am solo la Sénégal laajte na itam ne conseil de sécurité na daje. parce que àddina noonu lay doxe léegi ci àddina bu organisé benn pays amul droit. parce que da nga am jafe-jafe ak benn réew nga jëm sa armée dem foofu àddina doxe noonu kooku jungle rek mooy doxee noonu mais ay doomu aadama du ñu doxalee noonu donc Sénégal amul droit moom ci boppam jóg def intervention ci Gambie amu ci droit sauf su ko conseil de sécurité daje ne ko ah chapitre 7 moo nekk loo xam ne suñ ko indee dafay troubler àddina bi am nga droit intervenir donc Sénégal mun na intervenir mais su koy def daf koy def ci benn cadre Nations Unies cadre wo mu jox ko manda donc noonu lay doxee yooyu aussi na ko askan wi xam pour bañ a def pression ci gouvernement ci loo xam ne gouvernement mënu ko def et gouvernement waru ko def sax waru ko def parce que àddina du doxee noonu ku lu ne looy def da ngay seet yoon wi ñu koy jaarale soo jaaree ci yoon wi rek dina am résultat waaw jàpp naa ne su àddina bi yëpp defee pression ci Yaya Jammeh nga xam ne kenn du reconnaître sax nangu ñu recommencer élection yi moom dina xam ne nekkul ci yoon su su dee nekk loolu suñ ko defee pare te moom yënguwul kooku organisation des nations unies conseil de sécurité moo ñëwaat décision nag boobu su ko jëlee suñ ko mettre en œuvre du am benn problème loolu mooy li nga xam ne moom laa ci bëggoon na wax ci wàllu Gambie boobu di ñaan aussi suñu kilifa diine yi ñu ñaanal ñu si parce que jàmm Gambie mooy jàmmi Sénégal ni Gambie mel ak Sénégal daanaka amul ci àddina ñaari réew yu mel noonu waaw Gambie benn frontière lam am ak benn réew xam nga kooku euh, dara xaju fa lu mooy jubal lu moy rafetal kon nag te kii nga xam ne itam moom lañ def muy président élu moom yéeneem mooy wax na ne Sénégal mooy mooy mooy li jiitu ci li mu war a toppatoo suy visiter Sénégal la war a commencer ah lu su loolu amee kay ca dëgg-dëgg war nañu seet loo xam ne gagné boobu mu gagné ñu kenn bañ ko yàq waaw su kenn bañ ko yàq su ñëpp jàppee am naa yaakaar nañ ci am résultat incha